gaay ñi ngi leen nuyu di leen ziar yeen ñi ci forum ak sport dañu wara ñu information yeen lion day wax ci ki xamne nak mo suñu góol bi di ad meli war wax Kalidou Koulibaly avenir am war a wax ci ki nga xam ne Cheikh bamadien fan la wara a mujj ak ban club mo koy bëgg mais laata loolu dañuy wax ñi gën ci page bu ngeen abonné te ngeen bëss ko notification bi pour ngeen am suñu vidéo auto réel ki di Edouard men nak mom la ñuy njëkkee ñu ngi jot ay information nak club bi ko bëgg bari na ndax club bi nga xamne moy mooy Chelsea dañoo bëggoon a yokk contrat am mat 6 ans mais mu xamal leen na leen il faut da ngeen yokk sama salaire ndax man kat mënu ma nekk numéro un Kepa bëgg ma ëpp la salaire ndax Kepa li muy fayeeku presque doublé leen li bi xam mel ni moom lay fayeeku ndax bokk na mais góor yi ëpp la ñuy fayeeku ci monde bi. boo xoolee nag suñu góol bii di Edouard Mendy chaque mois chaque semaine ñi ngi koy fay cent mille euros te loolu gis nañ ne tourné bu baax ak performance yi nga xam ne mi ngi koy def ndax ba mu ñëwee ak léegi ba jëlee ko Ligue des Champions góol bi sax dañul ci xeex pour Chelsea mën a ñëwaat ci seen place bi nga xam ne mooy deuxième wala troisième ci seen championnat ba kon pourquoi pas Edouard Mendy ñu yokkal ko salaire am wala mu dem ci kël yi nga xam ne ñu ngi koy bëgg club bi mel ne Monaco gis nañ ne mi ngi bëgg club bu mel ne Lviv gis nañ ne mi ngi bëgg ndax ba ba ñu jógee ba léegi mënu ko ñoom góol boo xam ne dafay nekk góolu classe mondiale kër bi ngay bëgg bari na bari goo xam ne kon suñu góol bi am nañu yaakaar ne ñaar rek fi nekk waa man ñu wasin bàyyi dem tool maanaam dañu yokk salaire am ba góol moom dem ci yeneen club jël fa place am am salaire bu gën a rëy rëy salaire bi nga xam ne moom lañ koy jox ndax ku ne xam ne góol bi war na mën a lopp loolu ndax performance bi def jégg na day wax ndax jël na ni ma ko waxee coupe d'Afrique jël Ligue des Champions gagné ay trophées individuels yoo xam ne bi mu ñëwee ci foofu bi mu ñëwee Kelsey la yegul te fa la ko jëlee kon loolu mooy maanaam performance yi def Kelsey rëy rëy yoo xam ne kenn xamul toll ba sax gars yi da nga ko wooyee Moussa la Kelsey maanaam bi mu nekk Kelsey axe yu bëree dañuy gis ne da jógee ci gaynde bi nga xam ne mooy Edouard Mendy ñëw ci suñu gaynde bi nga xam ne mooy Cheikh Bamba Dieng Cheikh nag dañuy gis ne ci Olympique de Marseille taadasam day wul nonu manam daw bu dan départ wala sax max ñu ko deuxième bi ta ren day gis nañu du départ wala sax max bi bari wul manam des fois sax du bokk ci feuille de max bi ñu gis nag coach mbii di sampali bi ko yoroon ci daw olympique Marseille bokk rank nekk titulaire loo gis nañ ne nee na bëggaan ki nga xamne moy Cheikh Bamba dié indi ko fële ci Séville ci championnat espagnol ba ñu gis na Cheikh Bamba dié nak budé salaire bi baxna te maam waa na nga jaay war naa maa dem fële nga xam ne mooy championnat Espagne pour war maa gagner foofu temps de a a a nekk jour Bamba Dieng xale boo xam ne xale te réew am na ci moom yaakaar te ëllëg dafa bokk espoir yi ñëw na ci gaynde bi nga xam ne mooy Kalidou Koulibaly la Moussé Moussé bi nga xam ne mooy professeur défenseur yi ma koy wax kuy défense a nañu wax ne Kalidou Koulibaly mën na la jàngal défense ndax vraiment li muy def doo ko mën doo ko mérité te pression du métti bu mu tiit gis nañ ne nag Inter doon nañ ko bëgg pour indi ko ci seen club pour mu nekk défenseur boo xam ne dafay nekk défenseur classe mondiale mën leen a tëral seen seen bi nga xam ne mooy Inter ba mu war a mën a imposé ca championnat ba nga xam ne mooy championnat Italie ba imposé wu sax daal maanaam mën di jël pied di garder chaque jamono di di bokk li champion ay performance yu rëy yoo xam ne dana mën a apporter da leen mën a apporter lu bari ci seen avenir a a amee muy Kalidou Koulibaly bi nga xam ne miim na championnat Italie ba mi ngi wane euh, ay jéego yu am solo bi mu nekkee ci Napoli mais na man sama xalaat mooy gisuma Kalidou Koulibaly mu jóge Chelsea ndax Napoli nekk na fa nga lu bari championnat Italie ba def fa la mu def kon commencé na arrêté wu ci li nga xam ne mooy Premier League bi kon na toog fi nga xam ne mooy Chelsea pour na gën a bu baax a baax di mën a apporter lu bari ba ndax championnat Premier League mooy championnat bi nga xam boo fa nekkee monde bi yëpp da ngay xam lu suivre te en même temps dana gën a am. moo gën a am xatis moo gën a metti te bu ñuy équipe nationale bu Sénégal championnat bu gën a metti lay gën a may équipe nationale bu Sénégal ah, ah, ah bu baax a baax pour mën a tërir yan max yi metti xam ne ñu ngi koy am kon gars yi loo ma nekkoon information yi wéy leen di abonné di commentaire di partager ngeen ñuy xaar fii ci Rmo Sport ak yeneen jàngat ak yeneen vidéo merci beaucoup